bi ñu njëkkee fi nga xam ne mooy Kambarène ak Ngor tey nag fii lañ koy ndar keppee eh, ci Yoff eh, Diamalaye ñu revenir rek ci discours bi nga xam ne Euh, tenir nañ ko ci cérémonie officielle bi ndaxte it ñi nga xam ne ñooy kilifa boobule kuréel bi ñu jëlee kàddu daldi nañ wax ci jàmm fii ci Sénégal waxit respect bi nga xam ne war nañ ko mën a def gën koo mën a ñoŋal ci ñi nga xam ne ñooy guide religieux yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi muy murit muy tiijaan muy laayeen ñëpp daal daal dinañ wuyu si eh, cent quarante-troisième appelu Seydina Limaamu Laay ñu ñëw fii nag tey ci Yoff Laayeen eh, war a jox kàddu fidèle yi nga xam ne ñëw nañ ngir boobule ziara eh, ñu mën a joxe seen impression ci cent quarante-troisième édition appelu Seydina Limaamu Laay fii ci Yoff Laayeen tur Malick Niang nam waaw wax dëgg yàlla nag maa ngi door a ñëw ci appel maa ngi jógee Kër Massar Kër Massar ah. waaw macha allah macha allah ah wax dëgg yàlla mbégte gu yaatu yaat lañ ci am eh, ndax wax dëgg yàlla seen naa limaam moom ñun wooteem dañ koo dañ koo dañ koo gëm lu waral ñu gëm ko nag suñu borom daf ñoo dimbali ñu tarbiyee ñu ci laa ilaha illallah kon amaana moom bu wootee laa ilaha illallah ak dayog laa ilaha illallah ni xam ñu xam ni mu toll foo ko natt wees na ko te ñu gëstu ci ñun lu bare bare bare bare ndax barabam yu bare bare dem nañ fa donte ay taalibi sëñ Tuubaa lañ waaye itam e, gëm nañ wooteem gi nangu nañ wooteem gi sànq rek maa ngi koy wax ak sama rakk ji ma àndal ko si naa limaamu képp xam ni suñu borom loo nga xam dara ci maarifa rek mënoo xam seen Seydina Limaamu kon amaana loolu suñu borom dimbal na ci moo tax ñu am ci mbégte gu yaatu yaat ñu ngi ciy door ñëw waaye yàgg nañoo bëgg ñëw waaye tam lii na ko suñu borom dogale waaye teewut même bu dul appelit ñu gi ñëw ci ay barabam di ko gérer waaw kay alhamdulilah. Aïssatou Pouy ah neex de macha allah ah, boo fi ñëwee moom dangay am looy yëg ngay. kontaan am loo yëg xam ne fii vraiment daraa ngi fi macha allah ah. man maa ngi jóge Tëngéej waaw kër Daouda Sarr. non bi mooy sama troisième fois daaw ñëwoon naa ren aussi ma ñëwaat macha allah waaw. ci message yi nga xam ne yëkkati nañ ko fii ci appel. waaw message yu am solo ndax. boo xoolee nit ñi ni ñu soloo rek nga xam ne lépp euh, mat na jàmm jàmm la paix jàmm ak salaam rek ci la lépp xaj waaw te ñun dëkkub jàmm la jàmm lañ xam jàmm rek la ñuy doxal incha allah waaw ok merci. waaw asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu mu la nuyu mbokk téléspectateurs yi waaw lii dafa nekk lu rafet loo xam ne amaana ni yàgg nañ cee bëgg a ñëw yaa ngi dégg waaye suñu borom tey la ko dogal quoi yaa ngi dégg. te Seydina Limaamu Laay moom suñu borom def na ni ku ko nangulul ku ne rek da xamut moo tax ñun ay ay murid lañ nekk taalibe sëñ Bamba waaye dañ kaa teel a nangul teel a xam dayoo bu ko yàlla may yaa ngi dégg moo tax lu ñu mënoon jàpp dañ koy bàyyi te ñëw barke yonent bi ndax réew mi jamono juñ toll nii yombatut ci ku randal géej dëkk yaa ngi dégg randal géej def ay juma ku doon bu doon keneen fii tamit ba mu nekkoon maamu keneen bu randalee ay kër la koy def dakk k di ko jaay waaye moom dong nga gis mu randal géej la ci def mu def ko ay juma di ci jaamu yàlla bak suñ Tuubaa kon kooku amuñu lu ñu lu ñu di ko fay rek di ko sant di di ko sant di nga ñaan yàlla yàlla fayal ñu ko suñu yàlla yàlla nañu fayal Seydina Limaamu bu baax kontaan nañ am nañ mbégte nag ci bis bi bak suñ Tuubaa waa ziar ba waaw doolu ziar soxna si ah bisu tay bi mbégte la ak mbégte rek ndax lii moo fi dese Sénégal jàmm ji nga xamee nii moo ne si Sénégal maanaam boo xoolee ba xool adduna bi fu toll ak fu jamono bi toll nii nga xam ne recette yi bëri na si adduna bi ñi ñaa ngi guerre ndax alalu àdduna tey boo xoolee Sénégal tey li fi nekk lépp tey feeñ fi dara neew fi diine lislaam ñun maanaam bisu tey bi maam limaamu lay woote fu nit diine nekk si àdduna rek baa nga loo jàpp ñëw wuy si ko kon donc lii dafa doon loo xam ne nii feeteer la boo xam ne ñëpp ci mbégte macha allah waaw jërëjëf jëf appel bi macha mi ngi ci doon séntu ñëpp yàlla defal ñu ko yàlla nañ ko téye néew ni déwal ci barke Seydina Limaamu adieu salaamaaleykum. ak jàmm ji ñu ñaan ci réew mi. waaw waaw yàlla nañ ko yàlla defal rek yee fitna moom baaxul yàlla nañ yàlla musal ci yee fitna fitna ji rek nañ ci dimbali rek. musal ñu ci yal na yàlla def jàmm ci réew mi comme ni sëriñ bi wax rek jàmm rek mooy lépp yal na yàlla defal jàmm. sëñ bi ñu ngi lay. waaw maa leen di Kankaam Laay. e ñëw ci appel bi fan nga bon man ma sewal dama ñëwoon ci appel bi maa ngi jóge ba Bakel région de Tambacounda Bakel fa laa jógee ñëwoon ci appel bi waaw waaw. bon appel bi daal li ma ci mën a wax daal mooy euh, macha allah parce que at ma daal yokkute la vraiment at ma jot yokkute rafet na. organisation bi macha allah accueil bi macha allah donc daal lépp rafet na euh, lu ñuy gën a ñaax nit ñi rek euh, ñaan yàlla rek jàmm am ci réew mi jàmm am si àddina bi parce que jàmm moom bu amul moom. léppay sooxe te kenn ñaanu yàlla te bon aussi euh, les recommandations euh, de Imam Makhtar ci yoor-yoor bi déglu nañ ko nañ ko jéem a jëfee nañ ko jéem a jëfee duñ dox benn ñu yokk ko ñaar lu ñu def ñaar yokk ko ñett incha allah ndax lépp lépp mën a jëm kanam waaw incha allah merci beaucoup